voilà donc euh, boo xoolee ñun suñu modèle c'est pas forcément euh, balaa ngay dugg ci sport bi il faut nga am ay notes yi rëy non mun nga ñëw dugg nekk étudiant. Mhm. bi nga xam ne yow da nga bëgg jàng sax basket. Mhm. wala déjà tu un un un joueur balaa ngay ñëw ci université bi donc cas yooyu bu présenté woo. Mhm. xam nga université dafa am lu ñuy wax ay des personnes yu chargé wu ci orientation étudiant bi. donc étudiant bi. moom équipe bi day am benn personne morale boo xam ne moom moo ñuy accompagner moom mooy gérer cas yooyu c'est-à-dire waxtaan ak étudiant bi xool fu mu fooree xool seen not di ko orienter di ko di di ko di ko permettre di ko alléger le temps bi. parce que dans dans l'association il y a des gens euh, des techniciens. exactement il y a des techniciens qui sont spécialisés en ça moi qui man mii di wax yow j'ai ma formation de base c'est la sociologie du travail et des mm-hmm. organisations. Mm-hmm. donc am na loo xam ko. prévoir leen ko pour cas boobu bu amee nan la ñuy mën a waxtaan ak étudiant bi wax ko ni ñaar yëpp priorité la. Mhm. léegi yow da ngay xool si sa agenda si sa calendrier ni nga koy permettre ba nga xam ne moom en même temps. Mhm. qu'il poursuit ses études dina mën a am possibilité def sport bi normalement. Mm. parce que xam nga ñun loolu loolu lépp moo tax association bi aussi mu judd parce que dañu gis manquement yooyu amoon na. Mhm. mais pour mu bañ am donc ñun bu ñuy ñëw. dañuy andiwaale outils yooyu yëpp. yu ñu jël loolu en charge